bu buñ amee mbégteex am naa ko Cheikh Anta nekk ku baax fu daan gisante ci Europe daf may fonk respecté bëgg ma lool su ma waxee mu lee lu ma dugal mu commandé ko reetaan yal na ko yàlla xaare àjjana yal na ko yàlla xaare àjjana dama bëgg yéen ñëpp yéen ñëpp maa ngi koy jaale waale Balago sekk di ko jaale waa Ramdaan Amady Badiane Njago Oro di ko jaare Njaga Ndiir Seydou képp ko bokk daan yaay Faatu Jaaga waale Balago Seck Salimata Gueye El Pocho